الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاً إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا مما يخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور jazakumullahu xayra suñu boroom jalla wa ala mu ne tanzilul kitab wàcceg téere gi di min allahi alazizu alxakim mi ngi jóge ci yàlla mu tedd mu xereñi mi inna anzalna ilayka alkitaba bilxaq ñun ñoo wàcce ci yow téere bi ci dëgg faabud illaha muxlisan lahu diin jaamul yàlla nga sellalal ko diine ji ala lillahi diinul xaalis ay la am day mooy yàlla la ñeel diine bu sell walazina taxasu min dunihi awliya ña nga xam ne nag dañoo jël gannaaw yàlla ñu ñuy féete woo ma nacbuduhum illa li yuqarribuuna ila allahi zulfa di wax ne ñun day jaamu wuñu leen lu dul ñu jegeel ñu ca yàlla la nga xam ne mooy ak jegeel inna allaha yaxkumu baynahum sa borom yàlla mooy atte seen diggante ma hum fihi yaxtalifuun te la nga xam ne nekkoon nañ ca di ca wuute inna allaha la yahdi man huwa kaazibun kaffaar sa borom yàlla day du jubal koo xam ne fenkat la suulkatu njëkk la muy weddikat di yéeféer لو أراد الله أن يتخذ ولدا يلا بدون دا بغ جيل دوم لاصطفى مما يخلق ما يشاء كون دون نتان تي ليمو بيند لاك تي سبحانه سلنيل نكو وهو الله الواحد القهار مو يالا كين كي خلق السماوات والارض بالحق مو بين سمانيك يكسوف تي دغ الليل على النهار moom mooy lëmas guddi ci kaw bëccëg wa yukawiru nahaara ala leyl di lëmas bëccëg ci kaw guddi wa saxara shamsa wal qamara moo tàggat jant bi ak weer wi kullun yajri li ajli musamma bépp ci ñoom ma ngay daw jëm ci dig bu ñu tudd ba pare ala la fa am kay huwa al azizul ghaffar moom mooy ki not ci kattanam kiy jéggale ay bakkaar yépp mi ngi noonu mbokk li mooy suuratu zumar di saar bu wàcce ca makka li muy waxe sorewul ak yi ko jiitu ndax xam ngeen mboole mi saaru makk yi dafa ñëw di defar pas-pasu doomu aadama yi doomu aadama yi seen wuute ci jaamu yàlla loolu tax ko graw waaye seen wuute ci pas-pas mooy teqale yéefir yi ak ak jullit ñi ak naafiq yi mi ngi noonu suratu zumar suñu yonente alayhi salaam fonkoon na ko lool tudde nañ ko zumar ndax li yàllay wax ci mujj ga mooy ñi nga xam ne ñooy waa ajjana dañ leen di siiq lazina kafaru ila jahannama zumara wa lazina amanu amanu ila lazina taqoo rabbahum ila aljannati zumara mooy waa ajjana ay mbooloo la ñuy doon waa sawara ay mbooloo la ñuy doon ku nekk sa daraja ba nga tollool moom ngay duggee fa ngay dugg ñu tudde ko zuma rasul sallallahu alayhi wasallam bëggoon ko lool <clears throat> suñu Aysa nee na nii woon na yonent bi tëdd ca jàngul suratu zumar <clears throat> ak suratul isra mi bani xoolee saar yooyu yépp dafay ñaaxaate ci qiyaamul layl ngiree yonent bi it fàttali ko loolu ba sawar ci qiyaamul layl looloo tax mu daan gën a bari jàng ñaar yooyu mu ngi noonu bari woon na it di jàng par guddi suratul ak suuratu sajda ala kulli xaal di saar boo xamee ne nii naka yonente bi fonke woon yowit julit fonke ko noonu suñu borom yàlla ubbee ko ni tanzilul kitab buñ ne anzala mooy lu wàcc benn yoon moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan inna anzalnahu fi lailatul qadr alquran benn yoon la wàcc ci asamaanu benneel amma buñ ne nazala mooy dafa wàcc nànk-nànk mi ngi noonu wa nazalnahu tanzila yàlla wàcc ko par étape étape pendant 23 ans kon téere bii di wàcc ci yonente bi ay ayat ayat ayat ndax yéefir yu bari dañ doon wax naan loola nuzila hadha alquran jumlatan wahida lu tax alquran wàccul rek benn yoon borom bi subhanahu wa taala nee na ki koy wàcce mooy al aziz mooy ki nga xam ne mooy borom kattan gi ci lépp waaye mooy al hakim al hakim mooy borom xikma bi li ma tëral lépp noonu la waaye mooy borom xukmu lépp lu mu atte rek ak maandu te la jalla wa ala mbokk ak jéng amu lu mu ci atte rek maandu te la ñeel borom xel mu ngi noonu borom bi mu ne téere bi ñoo ko wàcc ci dégg jaamul sa borom bu ko bokkaaleeg dara naa am mbokk suñu borom dañ koy jaamu seelal ko jéeneem benn mooy moom rek lañu war a jaamu ñaar jaamu gi moom rek lañ ci war a jublu loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax yow jullit jaamu woo xërëm yàlla ngay jaamu waaye nag attention julli gi def ko muxlisan lahu diin koor gi ak makke gi sarax yi lépp jaamu yàlla booy def ca sellul ne yàlla tax nga koy def jaamu yàlla googu yàlla du ko accordé ana aghna shuraka yani shirk lépp looy def na yàlla tax muxlisan lahu diin borom bi ne ndax du yàlla la ñeel diina ju sell mi ngi noonu teraanga lu mu réy réy boo ko boolee keneen gedd na wàllam gis ngeen ala lillahi diinul xaalis amma nag seytaane fam jaare li ëpp ci doomu aadama yi réeral leen ñoom nangu nañ ne yàlla mooy boroom lépp yàlla ñu moom yàlla lañu war a jaam waaye nag yàlla gisuñu ko yàlla dafa sori kon fokk ñu am lu ñu ko jegeel looloo tax ñu ne buñ nee yaakaaru Uzayru mi ak Isa mi wala suñu xërëm yii di Laat ak Uzza xam nañ ne du ñoom ñoo bind asamaan ak suuf waaye dañ leen di jaamu ngir ñu jegeel ñu yàlla mbokk loolu mooy di seytaane dugal ci doomu uh, aadama yi donte ne suñu borom yàlla moom nee na yonente bi alayhi salaam wa ida saalaka ibadi anni fa inni fa inni qarib nee leen man maa leen gën a jege lu mu mën a doon maa leen gën a jege luñ mën a doon parce que ne ma jox leen ci ay misaal su ma woo woon ka nekk ca gannaaw rido ba naan ko hey kaay portable bi jottalil ma ko sëñ Ousmane dañ naan kii xel mi neexut mbokk koo loo xalaat rek yàlla la ko gën a jege moo la ko gën a jege ci xam-xamam moo la ko gën a jege ci kàttanam moo la ko gën a jege ci yërmandeem looloo tax ñu yow mi nga xam ne danga am xel sa digganteeg sa borom doo ci teg kenn borom xam-xam yi sax dañ ne ci xikma alquran suñu borom def na yeneen ti yàlla bi wa ida saalaka ibadi anni samay jàmm bu ñëwee ci yow di la laaj waxul nee leen dama jege ñu borom daal dégagé yonente bi alayhi salaam isa saalaka ibadi ani say sama jaam bu ñu lay laaj inni qarib tontu li doo ko wax directement dugalu ci sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam looloo tax ba mbokk jaamu yàlla gi yàlla rek moo tax ñu koy def muxlisan lahu din ala lillahi diinul xaalis amma képp koo jël keneen ku dul moom def nga li gën a bon lu doomu aadama def ci kaw suuf nga la xam leen ne mbokk li gën a bon lu doomu aadama def ci kaw suuf du dem fekk ab dëkk nga taal ko ñëpp dee li gën a bon lu doomu aadama def ci kaw suuf nekkul nekk góor jigéen ak wala lu mën a doon li gën a bon luy <clears throat> doomu aadama def ci kaw suuf mooy utal moroomam mooy utal boroomam moroom mooy li gën a bon <clears throat> borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñu day yàlla mooy atte seen diggante yawmal qiyaama yàlla du jubal koo xam ne fenkat nga weddikat nga fen wi gën a rëy mooy wutal yàlla moroom kafaar mooy yàlla bind la moom rek xéewal la moom rek ba pare ngay jaamu keneen ku dul moom suñu boroom tontu yéeféeri araab yi tontu nasaraan yi tontu yahudi nga xam ne ñoom dañ ne yàlla dafa jàpp doom suñu borom mu dee déedéet su ma bëggoon a jàpp doom danaa ko jàpp ci li ma bind ci lu ma neex waaye déedéet mbokk yàlla jàppul kenn muy doom amul doom doomowul kenn mu ngi noonu yàlla amul doom ca doomawul kenn bal li am kay mooy alwaahidul qahaar comme ni ñu ko jànge sànq mooy kenn ca mooy ko noonu ñëpp borom boobu nag subhanahu wa moo bind asamaan yi ak suuf mooy jël guddi di ko lëmas ci bëccëg kaw war a arab bu ko arab de wax mooy loolu la xas it dem nañ ba science yàlla mu mujj génne nekkate yoote suuf si dafa ronde dafa wurumbalu looloo tax guddi gi da koy lëmas da koy da koy romb di dem suuf bi ni muy tourné jàkkaarloog jant bi ñii ngi bëccëg mu tourné ñi nekkoon bëccëg nekk guddi ñi nekkoon guddi nekk bëccëg yu kaw kawiru layla ala nahar wa yu kawiru nahar ala layl gannaaw ba mu indi màndarga yi muy ash-shams wal qamar yooyee nga xam ni shams bi mooy mandarga bi indi bëccëg yi dañuy jàngal suñu jaamu yàlla yi te moo ko guddeeg bëccëg ni ko jullit di bàyyee xel amul kenn ci kaw suuf ko ko bàyyee xel te ji da ngay gis ne ñu ngi ci bëccëg rendre compte rendre compte mais fi nga yégée ne jant bi sone rek di suñ tam da ngay profité doga <laughs> mi ngi noonu dog daal di jublu ci timis bi naka noonu fajar fu mu xare ñu julli fajar digg bëccëg nga julli tisbaar noonu la suñu borom yàlla di defee léegi jant bi moo ñuy won waxtu julli weer bi di ñuy won jaamu yàlla yi tënku ci weer weer yi moo ñuy wax naan weer wii lañu war a woor feeñ na tey la commencé feeñaat na terminé aj makka zulhijja feeñ na juróom-ñeenteel ba mooy arafat fukkeel ba moom mooy euh, zulhijja mi ngi noonu moo ñuy jàngal jaamu yàlla yi ci année bi borom boobu nag subhanahu wa ni moo leen tàggat ñuy daw ci ndigalam ku nekk ci ñoom tëral na waxtu wi mu waree a waxtu wi ñu ko war a wékkee borom bi nag subhanahu wa taala ni xam leen ne yàlla muy al aziz comme niñ ko jànge woon sànq waaye it mooy al ghafar comme niñ ko jànge woon sànq bu ko neexoon kenn du ko moy ñi koy mooy it képp ku ci tuub tuub bu sell mu ball la yal na yàlla jéggal ñu luñu xam ak luñu xamul yal na yàlla selal suñuy pas-pas boole ñu ñi muy teral aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain